mengganggu guys balik akan king king boy negre king boy ana ko wala ko ya ada bukku toncan ngana ke barki sey muna ay adam ni ma ma tiene ma ni ma ñew legi legi asim ma jaar bi ha mais gaan tey ci initiative ne ni ñu leen di woowee CBI di samay frère ak samay sœur tey ñoom ñu nekk sama ginnaaw nekk sama doole di ma nekkal fi ma mënul nekk di ma defal itam man li ma mënul def tey jii nii gëm naa ni yëpp su amee ginnaaw yàlla ñoom la awma seen fay nag ndax man ak ñoom déppi ba may tàmbali ba léegi ñu ngi ànd ak man te ànd ak nit bu xaw a am tur daa metti yenn saa yi di nga dégg lu la neex yenn saa dinga di dégg lu la neexul waaye loolu yëpp xale yi dañ ko boole wanuñu ma ko te waxuñu ma ko itam ci lépp lu ma nekk ñu may jàppale ñu may jàppale ci sama liggéey di ma jàppale ci sama diggante ak doomu aadama yi di ma jàppale itam ci yéene yu baax yi nga xamante ni yenn saa yi danaa ko am te mu xaw a metti sax ci sama jëmm pour def ko dañ ma koy defal kon may ñaan lépp loo xamante ni mën ngeen ma ko ñaanal ci xale yi nekk sama ginnaaw ngeen ñaanal ma ci bu baax a baax baax yàlla sàmmal ma leen yàlla suturaal ma leen bu baax baax yàlla yokk leen xéewal yàlla jubboole ñu suñu biir man ak ñoom ñoom itam seen biir ba yéene yu ñu am si man yëpp ñu mun ko àggale ba ñu mën a àgg fépp fu ñu bëgg a àgg ci àdduna bi mën a dimbali itam Sénégal parce que ñun lépp lu ñuy def itam Sénégal lañ ciy jiital tey ndaw yi nekk ci daara bi Sénégal lañu bokk ñun dafa war a am taxawaay bi ñu war a am ci ñoom ndaw yi nga xamante ni itam ñu ngi may bàyyi xel Sénégal lañu bokk te man tam dama leen bàyyi xel bu baax may sàkku ñaan ngeen ñaanalaatal ma bu baax a baax xale yi nga xamante ni ñu ngi ànd ak man ñaanal ma tamit ngir ndaw yi nekk Sénégal. suñu borom dolu leen sutura dolu leen xéewal ba yéene yu ñu am ci seen bopp ak ci seen ay waajur ñu mun kaa àggale man nag gëm naa ni sama wax bari na sax ba noppi waaye dama koy tënk te dégg naa ne bu baax a baax incha allah rabi suñu kéem kàttan li ñu mën ak li ñu mënul dinañ ko def bugguma nag di di di joxe ay dikk waaye fii nii muy bërëb bi ma ñëw fekk fi nango yi gis leen amna ci ay yene yo xamanteni ni bëgg naa ñu mottali ko kii toog mooy kilifa liggéey bi di Idrissa dembu la jóge France ak coono bi lu muy bari dafa bàyyi itam yëpp ñew google ma xalé ngir yene yi ñu am ñu mun ko motalé nuyu nañ la. ñu ngi ziaré ba def jamm eh, tawfiq hmm uh-huh. eh, suñu kafe gee ni nii. gaangi ni ngi nii. Eh, lépp jàmm ah. waaye ngaa jaar fi. waaw. wàcce len sama waaw. sama waay la quoi. dama ko yàgg a bëgg. xoolal mu gars yi parce que ñun sunu grand. te mi ngi nii quoi. di nuyu ñoom Jomaay di nuyu Sonko. waaw café gi koor gi génn xam bi am na xam nga léppay neexa ah. uh-huh. di ma bëggal nga xam sama booy la. si si waaw parce que gis naa loolu daa ñëw eh, eh, taxaw. waaw sama booy la quoi man moom ma lay bëgg quoi. Mm-hmm. sama waay la nag waaw. waaw mu Baye la. non Baye Fall la. Baye Fall la ak ñëw. ñoom Waly Seck Faramareen. ñoom moom instant yii nii mu ngi màgg sax. waaw mi ngi màgg ah. waaw bu ñëwee fi lay nekk moom chaque jour bi laay. ndeysaan ñun fii moom fii la Alayaale. Alayaale Alayaale su faar bi Alayaale su faar bi waaye dal jàmm. mais mais tooñ nga nga ne ko aada la. alors ah, loolu du ma ko wax si télé loolu dama bañ aada di ma di ma envoyé ay affaire quoi xam nga moom rapport su ma ko waxee si déggee loolu xamante nañ daf may rabal quoi. ah te instant yii noppi nañ xam nga ñu ngi weeru koor xam nga. waaw weeru koor ñu ngi ziar ñëpp nag. Mhm. jaay faay jëriñ. Ah, jaajëf ay bëggee bëggee